waaye même yeneen kilifa ak yeneen ñaata nit la récupéré tey la waalo gën a ay ndax duma gi ñu ko duma ci élection législative yi defe naa bi Sénégal di Sénégal ba léegi musul am kon ku yaakaar ni jël nga benn nit foog ni yóbbu nga ay nit ñu bari yow benn nit boobu rek nga yóbbu yóbbu woo juróomi nit yu wër nit kooku moo tax loolu amul solo li am solo mooy dafa am loo xam ne door na moom amul xelu seetlu loolu te loolu gannaaw yàlla dara mënu ko koo mooy ma nga doore nag 2019 nit ñi seetluñu bu baax 2019 nee na 65 pour cent la jóge ñëw 59 pour cent boo xam ne ñëpp xam nañ ni matu ko ñu jóge foofu mu ñëw élection local ñu neen ah waa ji wàcc na en deçà de 50 pour cent génne ay statistiques ñoom ñu génne benn carte Sénégal peinture ko en marron di manipuler sénégal yi ñu leen nañ dem ñëw élection législative su ma juumul mi ngi 40 entre 42 et 48 pour cent bu ñu demee présidentielle bu dee moom jàll na soo amee 30 pour cent wala 25 pour cent dina ma jaaxal bu soobee yàlla loolu moo am solo moo tax ci loolu la ñuy wax fi mu toll nii lañ ci wax lu simple la mooy Pastef ma ngay des ci coalition Yewwi Askan Wi di coalition bu ama am solo boo xam ne dem nañ ba ñi ko séq di ay leader leneen boole ëpp na politique ay relation judd na ci miinante am na ci soppante am na ci jaar nañ ci épreuve yoo xam ne kenn ku nekk natt na moroomam ba am lu mu gis ci moom lu ko doy sëkk coalition boobu dépassé na léegi politique ma gëm nag ni Pastef dafa am taxawaay bu mu am ci coalition boobu ma réaffirmer ko ne tey la Pastef gën a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey lay gën a sonn ci lépp lu Yewwi Askan Wi di def tey la ci gën a liggéey pour ñu gën koo dëgëral ak décision yu mun a ñëw yi nga xam ne day concerner individuellement les acteurs de Yewwi Askan Wi ñaareel bi Pastef ci biir Yewwi Askan Wi day gën a des ak gën a dëgëral intercoalition Yewwi Wallu ndax intercoalition boobu tey mooy majorité ci biir Sénégal majorité électorale majorité politique waaye mooy majorité sociologique bu amee lu ko nar yàq du jóge ci Pastef ndax ñun ay gor lañu ñun ñu ñàkk ci politique xam ni lii buñ ko defee ñàkk waaye des ak suñu ngor moo ñu gënal wor am dara moo tax léeg-léeg ne ñenn ñi dañ naan ñun duñu ay politiciens li ñu diggante woon ak intercoalition bi dinañ ko respecté ndax biir assemblée nationale am na ay proposition de loi yoo xam ne dinañ ko déposé bokk na ci yooyu mooy nu ñuy fexee ba kenn ku nekk ci sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne dañ leen écarté te tegewul fenn mën a delloo si waat seeni droit civique ba ñu mun a compétir comme tous les yi parce que sénégalais yi ñooy tànn seen président te dinaa ci ñëwaat loolu également bokk na ci projet de loi yi nga xam ne ak commission d'enquête parlementaire